ba yëf yëpp xumbee ñëpp aar waaye booba sa bàyyi neex naa xool moo yàgga rafet moo yàgga set moo yàgga dimbali doomu aadama góor googu jóg ne ko sëriñ bi tey nag ñëpp yëngu nañ waaye dama bëgg nga ñaanal ñu yàlla suñu gune yi ànd jublu yàlla xam nga moom la daan wont rek du problème kooku moom moo ko moom tubaab bee ko fent mais ak sëriñ la ko yàlla may mu ne ko du problème 76 77 mois de août fooy dugg tàkk fii gunu yëpp soo ñëpp jublu baax ñëpp xam yàlla ci loxol maam nuuru diina bàyyi alaaji baabu moo fi indi sa kooku nag dama ne ñun taalibe bàyyi la bàyyi waxoon ca ngóodi ba yaquuduhum ilal jinaani saalum wa fiihi maas yaquuduhum ilal jinaani boobu bàyyi alaaji baabu moom daf doon jël aljanna dañu indil moom mag ñi dañ doon jël nit ñi da yóbbu aljanna moom dafa jël aljanna indil ñu ndax moo ñu indil Cheikh Mouhamadou Hadi indil ñu El Hadj ñaari yoon ci dëkk bi indil ñu Cheikh Mouhamadul Amin indil ñu Baye Cheikh Ibrahima Fall booba fekk na ñu fi xaw a tàng ndax luñ miin a gudd la woon waaye loolu yëpp jeex na sa bàyyi noonu naan du la jeex jeex na mu ne ko dëkk bi nag bëgg nañ nga ñaanal leen mu wax ko Baye Sura Fall lan mooy sanc yàlla sanc na fi teju dàll yaa ngi toog alhamdulilah bés bii nag keroog bi ñu ko jëkk def sa baay moo yónni Babacar Thiam yal na yàlla yokk leer ña ko tàmbali woon fële dama dugg ci tànt bi gis tànt ruus gis gis affaire bi te keroog bi ñu ko jëkk def basan buñ lal sax amuñu ko ñëpp ci suuf lañ toog maam Nour chaise yooyu amoon ñu koy leer yooyu daan jar ay 2000 francs moom lañ xàbbi Aliou Mbaaxee ci lañ toogloo maam Nour Babacar Thiam tëbure li ñuy wax tëbure kaat kaare lay doon ñu ut benn nga ganaay tegal ko ci loolu ci la toog di sigar kere ñu def ko fii ci buntu jumaa ji ñëpp ba toog ci suuf kenn toogu ci basal amuñu ko waaye sa baay moo yónni Babacar Thiam pour mu ñëw tàmbali ñu def ci buntu jumaa ji muy sikar de sikar de sikar ba ñépp di jooy ñii daanu ñii kenn xamatu sa borom ñépp dellu ci yàlla Babacar Thiam ne maa ngi ñaan yéen ma ci sub yi warul leen ma may sikar ba màggat bu ma tee Baba Wilane ci sikarkat yi moo jox ne ko Babacar Thiam Cheikh Mamadou Hadi moo la fi yónni soo nar dee te sa xàpp dee jotul doye la buñ jotee naa la sama bakkan bu keragee ne ko ñëpp seede na ma yàlla jël Babacar Thiam toog Baba Birame moo ko waxoon naa def na toog ni sikkar ba doyal ci sikkar waaye la ci gën a kéemaane sa jëmbatu baay du dee xëyul xëyul lu mu buy kafit yàlla dëggal lii firnde ci loolu ba mu ñu yebalee Babacar mu ñëw fi keroog ba mu doyalee ci sikar ñu tànn xalifaam fii ci dëkk bii muy Cheikh Ibrahima Niass sa bàyyi tànn ko teg ko foofu ci taabal rek muy xalifa ak Babacar Thiam tey yàlla bu mu dem kon ba léegi taabal yi Babacar Thiam jógu fi ndax xalimaam xalifaam moo fi toog loolu nag bu ñuy duñ ko. seetlu ndax am na ñoo xam ne booba xay na juddoo kon sa bàyyi fi jaar ak moom waaye dëgg dëgg bàyyi alaaji baaw ba kenn mënu koo fay liggéey fii ci dëkk bii kenn mënu koo ndax mu jël indil ñu leen ba indi bàyyi sa rofaal keroog ba may wax yàlla sanc na fi te du mos a dal tey la fi yàlla gën a sax te du fi jógati yow nag dañoo sant yàlla ci yow fekk nga ma ci gàmm gi ñuy def Dakar ma ne la yow mën ngaa wuyoo saytaan ñaari sëriñ maa ngi ci sa gémmiñ yu bàyyi mu wax kenn ma ko nekk lu ma fekk sa bàyyi ne dafa yóbbu Serigne Aliou Cissé radiyallahu anhu ca France muy fay bañ demee bay yàgg réew yi yëpp ñëw di ko seet si France Serigne Aliou gisul ku dëkk Sénégal pour seet Serigne Adi mu ne ma yeewu dem ne ko Serigne waa Sénégal day bëgg nañ la comme ñëpp te man gisuma fi kenn mu seet si wér na ma ne ñàkk rek la Serigne bi dama bëgg nga ñaanal Sénégal yàlla ubbi fa bunti war sax mu ne bàyyi Serigne Aliou ne ko bi ngay wax te daanee goo dégg naa ku ne amiin moo tax na xel daal bi ñu defee loolu ba ca ba ca suba sa mu ñëw nuyu si waat ko ci fañ dal ca ba mu ne ko sëñ Hady la daan waxee ñi moo xam bi dama gént dañ ngay may nampal doom ji góor sëñ Hady ne ko alhamdulilah loolu wér na ñu doom ju góor mais duma ko fekke booba sëriñ Adi fu nekk mu ngi fay dugg di ñaan lu doom ju góor mu ne ko da am doom ju góor man ñaan si Aliou Cissé duma ko fekke bu keregee nag sa xel dana daj tuddee ma ko mais ba ma ko tuddee tuddee ko sëriñ kon sa baay moom sëñ Aliou Cissé la la tuddee mais bàyyi sëñ Aliou moo la tuddee sëy Cheikh Ibrahim kon mën nga yow ñaari sëñ sëy xaaj yow nag fii sa daf fi def lu rëy baraam jóg daf ma woo këram ñaari fan te yàlla rekk tax may wax billaay duma ko mu ñuy waxtaan ci yu bari man ak moom kese ndax dañoo tëj yoon bu mu jëm mu waxtaanal ma ci sa baay lu ma ci yu bari yu bari ma ne ko maa ko ma yaa wax ji li ma ci gën a neex maa fekke maa ca bokk maa ko jiite ñetti point yooyu yëpp soo waxee rek benn nga indi maa ko fekke wala nga indi maa ci laa a neex ci wax sa baay la lim ñu dimbali daf ñu fekk ñu sonn gërëm gannaaw buñ ubbeekoo ci yàlla dañoo dugg ci nattu yi li bu juuf na yàlla koo xam mu nattu la ay nattu dugg sa baay jóg taxawuñu bii loxo di sa baay bii loxo mu def ko sa maam jaane si sey moo tax yow suñ ñaari suñ ñaari kilifa suñ kilifa nga ci ñeseen suñ kilifa nga ci kiiseen ndax sa maam bu tàngaan ba tàng su ma seenee oto bi rek damay kontaan waaye moom it ku ma bëggoon la macha allah kon tey taxawee nga fi ñaari maqaama xett li man gëm naa ne xawsiyatu illaahi bii xett yi nit ñi ci nga toog yal na yàlla dëggal loolu ñu dala gërëm sëriñ bi sa taxawaay ñu ngi lay fuglu bu baax maam nooru nag fooy du bi tàkk ci loxoom dëkk bii nag benn bopp keese benn maam keese moo leen jur ñépp yaa moom sa baay moo tax léeg li daal mu ñëw nuyu ji ñëpp ñu ci bëri kilifa yi borom dëkk ba imam ba nangam li ma wax am nañu ko seede alaaji Talla Gueye alaaji Ali alaaji nangam borom dëkk bàyyi laay yaama wër nit ñi si ko mu topp ko ba lan lu mu am nag rek da koy may day kontaan boobu la maye sa baay jàppale ñu maam noonu faydu bi tàkk ci moom waaye nag mu am ay doomam ñu ñëw jàppale si ko waaye sa baay moo ko fexe moo leen mu ko demee ndukkumaan yi nekk leen benn ne Baye Alaaji ne nag nekk benn ñu jàppante nekk benn mu am ñaari kilifa yoo xam ne dañoo ñëw jàppale si maam Nourou maam Nourou jàppale leen mooy Cheikh Abdou mooy Cheikh Ahmad Daab عليك صلاة الله ثم السلام فطرها